إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñi ngi seede na yàlla rek moo yeyoo ñu koy jaamu di fàttali na rek yàlla it nañ koy jaamoo wuruñu koo roye ci kenn ku dul suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy suñu royukaay yonent boobu ñi ngi ñaan yàlla na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin ngalawaay borom xel mooy ki nga xam ne mooy sàkku yàlla defal ko teddaange adduna ak teddaange allaxira suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala nee na ki topp yàlla topp yonent yàlla boole ca ragal yàlla ñooñu rey ñoom dong ñooy ña texe mbokku diine ji ñuy dund di diine lislaam suñu borom nee na da ko wutal ak cuub ay couleur da ko wutal benn identité ba nga xamee ni jullit fu mu mën a nekk ci kaw suuf da ngay gis dañ ko ràññee ak koo xam ne ni du jullit loolee kon di mbir moo xam ni dañ cee war a bàyyi xel bu baax suñu borom subhanahu wa taala diina ji def luñ ci benn xat-xat may nañu ñu sol lu baax lekk lu baax dëkke lu baax waaye nag dañoo gis borom boobu bokk na ca lam ñu ca chartal mooy lam dénkoon ab yonentam te mooy ay yow yonent yàlla bi na nga jóg di waaraate ca base bi nga teg ko ci ne nga la waay na ngay laabal la nga xam ne mooy say yére ca it na nga laabal lépp loo xam ne shirk la na nga ko woon gannaaw lii mooy diini lislaam mooy laabal sa xol bi ci lépp loo xam ne bokkaale la waaye laabal sa jëmm ak sa sa yére ak place ya ngay nekk ci lépp loo xam ne dafa nekk ay sobe ci biir ñaari laap yooyu ci la jullit di dund loolu moo tax ba mbokk tey jii àdduna toll nañ ci foo xam ne ak laab tasaaroo na ci société yépp donte ne ne lu bari tey ci suñu ndaw ñi di yim tubaab bi laajal ñi xam civilisation tubaab nga xool leen daanaka ba ay dix-huitième dix-neuvième siècle ñu néew a néew ci ñoom ñoo xamoon lan mooy ak lan mooy sangu amma bu dee diine l'islam bi depuis que diine ji di door la suñu borom subhanahu wa taala santaane woon julit mu doon koo xam ne nii kuy laab la fu mu mën a toll borom boobu gis nañu ne laab googee da koo def farata jëfe bi nga koy jëfe doon jaamu yàlla bu lay jural tuyaaba bàyyi ga nga koy bàyyi doon bàkkaar bu lay jural merum yàlla jalla wa ala suñu yonente salallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne xam leen ngëm yàlla day nekk na juróom-ñaar fukki pàcc yu topp bi ci gën a kawe mooy saxal bi ngay saxal la ilaha illa allah ba ca gën a suufee mooy fekk luy lor ci yoon bi nga daal di koy teggi loolee kon lee di waral ak laab ndekete yoote kon loolu luy mottali ngëm yàlla la ay yéen julit suñu borom yàlla day nee na ay yéen maa leen wàcceel toilette yu ngeen di sol ay yéen julit ñi heure bu ngeen jógee jëm ci julli na ngeen jël seen taar ngeen taaroo ko lekk leen naan leen ca bu leen yàq yàlla bëggul ña nga xam ne ñooy yàqkat yi waaye mbokk heure bu ñu waxee julit bala ngaa jóg jëm ci julli na nga taaru la chaque ne ak taar la koy jiitu mooy ak cet xel nanguwul doomu aadama dem jël yéram yi mu fonk di ko sol te fekk setul loolu muy wane ne julit dafa war a doon koo xam ne ci ndigalu yàlla toujours mi ngi nekk di ànd ak la nga xamee ni nii mooy laab googu ànd ak cet googe suñu borom subhanahu wa taala bim ñu joxee ndigal ci nga taaru noonu it la ñuy teree la nga xam ne mooy ak rëy yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne koo xamee ñi ni day xolam lu tol ne zarra pepp pënd da caa nekk ci rëy day du tàbbi aljanna benn waay daal di jóg na ko ah waaw yu mu yàlla yónni loo xam ci waajoo xam ni nag daa bëgg moom yëre yu muy sol yëre yee doon yu correct yu taaru ay dàllam correct taaru yonent bi ne ko déedéet yàlla dafa taaru te dafa bëgg ab taar rëy moom mooy bañ bañ dëgg rëy moom mooy xeeb doomu aadama yi loolu mooy rëy ci lislaam waaye du solo la nga xam ne mooy solo ba correct mbokk lislaam mi ngi nii laabal suñuy pas-pas li gën a nekk musiba ci doomu aadama mooy xolam bi mu am kum cay bokkaale boroomam waaye noonu la laabal it suñuy jukko islam di diine jukko ju rafet te mooy jukko ju méngoog lislaam lépp loo xam ne jukko yu ñaaw la yonent yàlla bi xeex na ko tere ko doomu aadama yi islam ñëw taaral suñu jëmm ndax mbokk doomu aadama la nga xam ne mooy bitteem ak biiram dañoo lënkaloo bokk na luy wone ne biir bi taaru na baax na mooy mandarga yi ñuy gis ci biti bokk na yi ñuy wone la nga xam ne mooy jëmm ji sabewu na mooy mandarga yi ñuy gis ci biti danañu fàttali benn ndaw ci ndawi réew yi fi jaaroon muy oustaz Alioune Gueye bi doon dund nekkoon te ngéej daan wax rajo dunia ñëw na ci jàkka ji di fi def benn conférence di wax benn góor dafa dab benn jeune ci mbedd mi mi ngi takk benn jaaro sol ay dàll kilomètre gëm mel melokaan boo xam ne nam def bopp ba kenn mënu koo xool mu ne koy sama doom nii nga mel de melokaanu julit xale bi na koo ah waaye góor gi xol moo am solo quoi lii moom ci biti rek la mais xol bi am solo góor gi ne ko loolu moo ma naqari nag damaa xam ne xol bi feebar moo tax jëmm ji mel nii waaye bu xol bi laa bon jëmm ji lu mel nii loolee kon mbokk day wone ne doomu aadama ni ngay toppatoo sa bitti noonu lay amee conséquence jeexital sa biir xol loola tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam daan ñuy wax ne day fukki mbir yi ci ni yàlla bëgg julit mel ko noonu la war a doon ba nga xam ne moo ca jëkk mooy wàññi say moustache mbokk wàññi say moustache daa di bàyyi seeni sikkim ca loolu mooy yéen góor ñi et yéen jeunesse xam leen ne tubaab bi ñoo ñëw coloniser ñu noor sunu maam yi bokk na ko ca gënoon a siiw mooy fédère ba ak ña mel ne moom ñoom ñooy ñëw jalgati suñu diine jël seeni moustache bàyyi ko mun a bàcc tubaab bi jàngal na la nga nekk jeune di yor sikkim loolu c'est incorrect nit ko correct chaque jour war ngaa jàkkaarloog sa seetu daa di watu ba set wecc répercussion boobu am ba xattaa suñu biir armée yi nga xam ne daanaka yor fa sikkim déli la waaye mbokk loolu daa safaanoog yàlla mi la bindoon bëgg nga mel nam mel islam danaan la say moustache bu ko bàyyi mu ne bàcc bal wàññi ko ba mu rasé amma sa sikkim bàyyi ko lii mooy la nga xam ne noonu la yàlla santoon mbooli mi yonentam yonent yàlla muhammad noonu la yoroon ak sikkimam bu rafet bu tedd ba sahabatul kiram noonu lañ meloon bépp julit bu ngëm yàlla nekk sa biir xol heure boo dajeeg borom sikkim bu rafet nga bég ci moom amma képp koo xam ne da ngaa gis ne bàyyi ab sikkim loolu c'est incorrect mooy yow seytaane day noot na sa xol yaa ngi yor la nga xam ne mooy gisunu yéeféer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ce ne bokk na melokaan julit bi yàlla bëgg mu mel ko mooy fi mu toll muy soccu mbokk socc ni ngi noonu bokk na priorité bi jural doomu aadama bi wérgi yaram mooy sa gémmiñ ji set mbokk socc day leeral ay bët socc day indi la nga xam ne mooy wér gi yaram sa biir xol day jeexital ci sa xol day jeexital ci sa lu nekk fàttali na ma benn ah chirurgien dentiste mu ne ko waaw sëñ bi ab bëñ nga xool ko ah defar ko boo koy war a defar wala nga buddi sànni lu ci jar ngeen koy jàng cinq ans mu ne ma noo imam xanaa xamoo ne bëñ dafay am jeexital ak mboolem yaram bi yépp loolu mbokk mi ngi noonu loolu tax rasul sallallahu alayhi wasallam daana wax ne su ma bañul woon day sanal sama xeet bi dinaa leen wax ne bala caa kenn julli na na na soccu bu kenn di jàpp lu dul ne dafa soccu noonu la meloon sallallahu alayhi wa sallam bu ma saan dugg këram la muy jëkk a def mooy soccu loolu di mbir boo xam ne nii tubaab bi indil nañu tey jii les pâtes dentifrice nga jàpp ne da ngaa war a xëy socc ca ña ña koy def maximum deux fois waaye loolu waxuñu la baaxul de waaye ngal la waaye bu mu la teqalee ak yow jurit nga góorgóorlu di laabal sa gémmiñ heure boo xamee ne jóg nga jëm ci julli bokk na ci loolee mbokk julit rasul sallallahu alayhi wasallam daan ñu digal la nga xam ne mooy sarax ndiko bi ñuy def def ci biir jàpp nga xam ne loolu daanaka julit rek moo koy def islam impose la au minimum plus de neuf fois da nga jël ndox dugal sa biir bakkan xëcc sànni ngiree dindi la nga xam ne mooy bactérie ya nga fa jaxasoo mu nekk loolu di am différence bu rëy entre bakkanu julit ak bakkanu yéefér boo xam ne du jëfandikoo loolu yonent bi alayhi salatu wasalaam teg ca ba tey bokk na ci loolu ngeen di lelli seen we ay yéen ndaw ñi rawatina yéen xale yu jigéen yi tey jii da ngay gis wee ñi wee yi ñu yàlla wutaloon dem nañ ba xeeb ko dañuy dem far poose ay wee mel ni ay jinne mbokk loolu da ngay gis ne ay jigéen ñu bon ca occident ñoo ko lancé ci seen film yi ak seen revue yi waaye islam nanguwut loolu islam dafa naan julit wàññil saywee ba mu raase loolee da ngay gis mooy tax mu gën a mucc ay sobe gannaaw loolu yonent bi alei salaam ne day leen baril di raxas seen diggante baaraam yi ndax la nga xam ne moo ci mën a dajee ci la nga xam ne mooy ay sobe loolu it la ñu sante la nga xamee ne mooy kare yu poqutaan la nga xam ne mooy karawi naq doomu aadama bi di ko nemmeeku di ko dindi yonent bi salallahu alayhi wa sallam jàngaloon sahaaba yi ne kenn ci yéen bu mu toog ñiin fukki fan lu dul ne dana dindi karaw yi nekk ci naqam yépp ñu noonu ya nga xam ne moo wër ay payam na doon góor ak jigéen dindi karaw yi nekk ci foqutaanam mbokk lii mooy wér gi yaram gi lislaam digle bokk na ci loolu it rasul sallallahu alayhi wasallam daan ñu wax day leen jëfandikoo ndox heure bu ngeen demee ca wanag wa naam mbokk julit tey jii da ngay gis lu bëri ci yéeféer yi suñu demee ci wanag lu ñuy jëfandikoo ay papier waaye yéen ñëpp xam ngeen ne jëfandikoo ndox bokkul ak jëfandikoo papier islam nangu na nga jëfandikoo papier wala xeer wala ay bant waaye boobu daa fekk ndox amul amma bu ndox amee la gën a laab mooy la nga xam ne mooy jëfandikoo la nga xam ne mooy ndox boobee mbokk diine l'islam mi ngi nii di diina boo xamee ni nii noonu la bañ a tilim noonu la bañ a xet gu naqari rasul sallallahu sallam daana wax ne heure boo xamee ne kenn ci yéen lekk na ay soble ay laaj ci arab yi dañoo bari woon di ko lekk ci duñ ko sax togg mu ne bu ñëwee ci jàkka ji mu ne bu mu ñëw ci jàkka ji ndax malaaka yi fi nekk li doomu aadama yi di xent mu metti leen malaaka yi loolu day jeexital ci ñoom loolu mbokk da ngay gis noonu la yonente bi alei salaam doon yore xeetam ci nii it la ñu xoole rasul salallahu alayhi wa sallam suñu boroom subhanahu wa taala digal na ko digal xeetam ne ay yéen julit ñi kenn ci yéen bu mu julli mukk lu dul ne dafa jàpp mu gaa yi lan mooy jàpp jóg raxas say loxo ñetti yoon raxas sa gémmiñ raxas sa bakkal raxas sa kanam raxasaat say loxo bu ne ñetti yoon masaa sa bopp raxas say tànk loo xam ne au minimum da nga ko def ñetti yoon par jour jàpp naa loo mën a mën a téye njàpp da nga jàppal fajar bu tiswaaree nga jàpp xanaa njàppum tiswaar boo ko demee it ba timis da nga jàppaat wala ilaxiri loolee mbokk da ngay gis kan xoolal julit loolu ko l'islam farataal ci moom tey jii demal ci mboolem maladie yi nga xam ne ay épidémie la di faagaagal ay millions ci doomu aadama dañ lay wax ne mooy la maladie des messales lan ngay jëkk a wax mooy raxas leen seen loxo heure boo nuyoo ay nit bala ngaa dugg sa kër raxasul du loolu la loolu la ñu tubaab bi jàngal fekkoon na quatorze siècle lu jiitu loolu islam mi ngi jàngal yow julit au minimum sa loxo yooyee da nga dem raxas ku lu jege juróom ñeenti yoon ci bis bu nekk même bu doon da ngaa yem ci ñetti njàpp rek lii mbokk suñu borom yàlla teg ci nag ne heure boo xam ne da ngeen ànd ak janaba ngalla waay jóg leen ngeen sangu la chaque ne mbokk julit julit bi nga xam ne heure bu ànd ak janaba sangu ndax dana yem ak yéefir bi xamul sangu janaba yéefir ak bu mu mën a doon xoolal xatta yéefir yi liggéey seen kër ñi ci xamul sangu janaba dafa am xet boo xam ne da leen di topp am naa yow julit yaay ki laab sa borom yàlla sant la ne la heure boo ànd ak janaba da nga jóg nga daal di dem sangu borom boobu jalla wa ala bi muy wax li mu ne du xatal leen moo tax ma sant leen ngeen di jàpp wala xatal leen ngeen di sangu waaye dama leen bëgg a laabal baal leen seeni bakkaar foo jógee di jàpp say bakkaar a ngay ruus foo jógee di sangu say bakkaar a ngay ruus gannaaw loolu itamit mooy kon lay communiqué bitti yaram boobu ni nga koy laabale noonu lay jeexitale ca la nga xamee ni nii moom muy biir yaram ba looloo tax yonent bi alei salatu salaam daan ñuy wax ni xoolal kenn ci yéen rek amoon ci buntu këram benn dex bu neex bés bu nekk mu dugg fa juróomi yoon sango ndax kii dana am tilim bu des ci yaramam ah déedéet yow mi yàlla yónni mu ne nag loolu mooy waxtu julli juróom ñii lay laabale julit ci mboolem loo xam ne nii dafa nekk ci ay bakkaar yu nekk ci moom ay yéen mbokk julit yonent bi salallahu alayhi wa sallam daan nañuy wax ne kenn ci yéen bu nelawee ba yeewu bu mu jël loxoom rek dugal ko ci pot bi muy jàppe wala siwo bi muy jàppe ndax ci biir guddi gi xamul loxoom ci fan la fanaan loolu lépp mbokk ngir islam mi ngi wane ak cet sa loxo ndax am na ay yenn microbe am na ay yenn gunóor ak yooyu yoo xam ne bàyyi nañ ci loo xam ne ni ay salte la wala ay poison la wala nga dugal ko fokk wurtu dugal rasul salaa sallam mu ne bala nga ko dugal ca siwo wala pot jëkk ko raxas ñetti yoon mbokk njàngale gi kan moo koy jàngalee ndax lii mbokk gis ngeen am na benn civilisation boo xam ne dana jàngale lu mel nii abadan yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne amul kenn ci yéen bisu àjjuma dafa jot mu daal di dem sangu comme ni muy sangoo farata amee parfum mu laal ca parfum ba ñëw ci jàkka ji teqaliwul diggante kenn déglu imam ànd ak moom julli lu dul yàlla baal ko bakkaar yi semaine bi ba tegal ko ca fukki fan loolee mbokk da ngay gis te julit fokk àjjuma nga dem jàkka bal yonente bi alayhi salaam sax wax na ci beneen xadis bu buxaari solo mu ne la nga xam ne mooy xuslu yawmil jumaa waajibun ala kulli muxtalim àjjuma bu ne nga sangu ci au minimum loolu wareef la ci bépp julit ca mooy dëkk ba nga nekk lu fa ndox jafe-jafe même yow boo demul juma war ngaa doon koo xam ne koy sangu nga mbokk da ngay xool laab gi l'islam di jàngale suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam nit ñi day ñu ngi lay laaj lu aju ci ak laa lu aju ci jigéen ñi gis baax ne loolu aw lor la goo xam ne yàlla moo leen ko nattoo heure boo xamee ne soxna si am na baax bul ànd ak moom ca la nga xam ne mooy kaw lal mbokk ndax loolu yéeféer xam na loolu abadan yéeféer xamul loolu noonu la lislaam araamal nga ànd ak sa soxna ci jamono baax noonu la araamal nga ànd ak moom fa góor jigéen ñi di ànd loolee mooy laabug lislaam bokk na ci bakkaar yu garaaw mooy góor ànd ak soxnaam na góor jigéen ñi di def loolee suñu borom yàlla na nag buñ demee ba règle bi jeex fa isa tatahër na ndax bu laabee rek yow góor am nga dara ànd ak sa soxna suñu borom yàlla ne déedéet bu leen leen jege lu dul dañoo laab gannaaw bu mu ne bu ñu laabee te mooy soxna si bu laabee ci règle bi il faut mu sangu doog a mën a julli il faut mu sangu borom këram doog a mën a ànd ak moom mbokk ndax laab gi dañ ko gis ci benn civilisation abadan lii mbokk da ngay gis ne mooy diine l'islam lim lay jàngal yow julit di la topp fu nekk ba xatta si biir lal ba xatta te fa gën a suufe ci suufe islam da nga lay topp dina jàngal ak laab suñu borom yàlla mu ne xam leen ne yàlla ni mu bëggee ñiy tub seeni bakkaar noonu la bëggee it ñi nga xam ne dañuy sax nekk di laab a rasul salallahu alayhi wa sallam boo ko julit nii la ñu jàngale ne ay waay kenn ci yéen su demee day naan bu muy naan di delloo ak nokkeem ci biir pot bi waaye nay noy ci bitti ngir loolee rek waa ji lay seetaan te bëgg naan sa gannaaw xam nañ ne loolu mën na am ñagg-ñagg ci moom te it loolu mën na am ay bactéries yu jóge ci yow dem ci moom islam tere na loolu rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne kenn ci yéen bu demee ca wanag ba ngalawaay bul defaru bu mu defaroog loxo ndey jooram loolee ngiri lan loxo ndey joor bi gannaaw mooy dem ci gémmiñ ga kon ngalawaay jëfandikool sa loxo càmmooñ nga delluwaat ca la nga xamee ni nii mbokk moom mooy kër ya rasul sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne at-Tirmidhi solo na ko Saad ibn Abi Waqas na tili ko mu ne yonente bi alayhi salaam xutba na leen na leen xam leen ne yàlla day dafa tey bëgg tey dafa tedd bëgg ak tedd gannaaw ba maa ngi leen di sant day leen setal seen kër yi bu leen mel ni yahud yi nga xam ne ku ci bëgg a dem woon nag da ngay làqatu sa gannaaw néeg rek def la nga fay def loolee mbokk da ngay gis ne kon jullit mooy kan mooy ka nga xamee ne mooy laabal jëmmam laabal yëram laabal la nga xam ne mooy ab ab néegam laabal këram ca bu doon te ne cent quatre vingt yi yéen jigéen yi na ko moom mbokk jigéen mooy ki nga xam ne dafay ànd ak laab ngal la way te xel sa borom kër bu mu yëg ci yow ay xej yu naqari bul ànd ak moom mukk lu dul ne da ngaa nekk ca laab bi gën a set waaye laab ga it bu mu nekk laabu ganaar ca tub ganaar soo ko waxee magum sénégalais mooy kan mooy jigéen ji nga xam ne boo dajeeg moom ci mbedd mi ñi ngi correct waaye boo duggee néegam comme sabar gu tas boo xoolee la nga xam ne bagage am lépp a jaxasoo mbokk déedéet islam de la sant nga laabal sa bopp laabal sa néeg laabal sa kër organiser ko loolu day tax malaaka yërmande yi sawar di fa wàcc bi iznillah day tax cheytaan yi sori ko mais lépp loo xam ne salte la désordre la xet gu naqari la loolu mbokk day attiré la nga xam ne mooy cheytaane yi ñu ñëw ci néegu yàlla bii ñu daje yonent bi salallahu alayhi wa sallam lu ji lu ko jiitu ay siècle siècle baayam ibrahim la suñu borom waxoon ne moog ibrahima laabal leen sama néeg bi ñeel ñi fi ñëw di rukoo ko sujud ak di fi def itikaaf ca mooy kaaba ga loolu it kon nga gis ne bokk na daraja yi gën a kawe doomu aadama ji laabal néegu yàlla bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na yàlla won na ma sama tuyaabee xeet nee na benn bant bu ndaw bi ñuy dugal ci bëñ nga gis ko rek ci jàkka ji nga génne ko sànni tuyaaba ja sax yàlla won na ma ko ñi ngi ciy profité ñi fiy ñëw di laabal néegub yàlla bi góor ak jigéen yàlla yàlla laabal leen gannaaw loolu mbokk jurit nañu xam ne nag la ñuy mujjee ca laab googee mooy lii di laabu quartier bi lu bari ci doomu aadama yi daa naan daañu laabal seen kër waaye jël sa pullug mbalit dem ca tali ba rek sànni keneen ñëw sànni keneen ñëw sànni mbokk comme ni ngeen koy gisa sunu mbedd yi loolee mbokk bu dee état bi da ciy wax ak di ci jël ay mesures waroon naa nekk ci beneen dëkk bu dul dëkkul islam waaye ay yow julit biy dégg yonent bi alayhi salatu wasalaam daa waat ñetti yoon wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin maa ngi waat ne gëmul gëmul gëmul saxaaba yi ne ah kooku mooy kan mu yàlla yónni mu ne mooy koo xam ne dafay lor ay dëkkandoom yow jël nga mbarit bi jël ko sànni ko ca taliba ña fay romb ña dëkkew ca taliba sax ya xet ga di dem ci seen biir amaa yow nga nekk la nga xam ne mooy sa jàmm mbokk loolu ko gëm yàlla du def loolu amaa nag jël ko teg ko sa buntu këru dëkkandoo bi gën a jege loolu di nga gis ko gëm yàlla du def loolu loolu moo tax ba nga la waaye mbokk julit nañu góorgóorluwaat delluwaat ca la nga xamee ni nii mooy njàngaleen islaam islaam day bëgg na doomu aadama bi doon koo xam ne day sell sellay googee na ma leen ko waxe xol ba lay deppaare jaar ci jëmm ji jaar ci yére yi jaar ca place yi ngay dëkke jaar ca place yi ngay jaar moo yàlla fépp foo xam ne nekk nga fa nga xamee ne ne ak sobe daf laa jege du la jege ci fenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite na sahaaba yi bu mujj mu sumi ay dàllam sahaaba yépp sumi seen i dàll mu ne lu tax ngeen sumi seen dàll ñu ne ko dañoo gis nga sumi say dàll mu ne déedéet jibril moo ma dikkal ci biir julli gi ne ma sa dàll bi day sobe da cee taq gis ngeen mbokk julit loolu tax mu sumi ko kon julit mbokk mooy ki mel noone ànd ak la nga xam ne laab fu mën a toll loolu it buñ koy wax xamal ne bokk na ca laabal say jukko fexeel laabal sa lammiñ bi bu ca wax wax yu yàlla gërëmul fexel laabal sa jëf yi bu ca def jëf yi yàlla gërëmul lii day mbokk julit képp koo xam ne dajale na ko yàlla subhanahu wa taala dana ko may dund gu tey ci àdduna may ko dund gu tey ci àllaaxira ca mandarga la buy wone ne kii kat nitu aljanna la lu tax loolu mooy ajjana dara amu fa lu dul lu laab kese yàlla yàlla laabal ñu fi dunia wal axira yàlla yàlla laabal suñuy xol yàlla yàlla laabal suñuy jëmm yàlla yàlla laabal suñuy jëf yàlla yàlla laabal suñuy dëkkandoo yàlla yàlla defal ñu jàmmi àddina jàmmi alaxira yàlla na yàlla laabal ñu bañ yeyoo dëkk ci àddina yi kawe ya yàlla na yàlla defal ñu tawfiq yàlla na yàlla musal ñu ci fitnay àddina ak fitnay alaxira ibadallah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين